alhamdulilahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu dhakiran wa shakiran abada waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmaana alxikam faliyah bilmustafa xayra shiyam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 liggéey bu rëy boo xam ne ni ñun ñoo ko taxoon a jóg mbindeef yi suñ boroom dimbale ko ba liggéey ba sotti ba mu ñibbisi ba mu ñëwee suñ borom wan ko fay ga mu rëy lool ñëpp xaj ci àdduna ak àllaaxira tax mu woote liggéey yëpp cant kon liggéey ba na mu rëyee woon mu dem ak boppam lu ne mu daj ko ca ba mu ñëwee indil ñu sëre ca burut jeex lenn rek lañu ñu maasoo ndimbal ñu dimbali ko ci mu ñu santale ko yàlla ci xéewal gi mu ko defal ci liggéey bi te liggéey bi ñun ñoo ko taxoon a jóg kon lépp dafay dellu siwaat ci ñun ku la defal lépp nag bu la lu dul lenn boo des gor nga war ko ko mën a may te lam la ñaan it yaa ko moom kon lam waxoon ne koo xam ne ni sama mbég sa mbég la bis bi bu ñëwee nag ma ci santale yàlla kon nañ xam ne ñun suñu weer teru na weeru mbégte teru na weeru jàmm ak it teru na moo tax ma defoon ci ay bayit barkeeloo ko ne alhamdulilahi nu sant yàlla ci ay ngëneelam yi nu may nu jàll ay ate at ci jàmm ak ci xéewal ba fekkewaat teruk safar mi xéewal safar terewti na mbégum murit yi moo di mbegum bàmba mi moom murit yi moo nenu woon koo xam ne yaa ngi may bégle 18 safar na nga ci sàlloo bégle koo xam ne kii koo xam ne kii daal sama mbég sa mbég la na nga ci sant kon murit ndigal la gëléem ba ca ganaar lu waay am def ci bu kenn yéem bu kenn xeeb def leen ci ku la ci xas ba raw du yombatee jot koo ci rawit bul bul di ko ndég mu lay jot weeru safar teru na mbégte door na merak merooki stress a jeex na weeru safar teru na mbégte door na merak merooki stress a jeex na na xol yi naat kanam yi naat ñuy reetaan ñi ñaaw rafet ñi noppi woon di waxtaan safara saf moo gën a saf ay saf-safal sa xol bi lay seral mu saf sa xel mi dal mbégteem safar man mi ko mos xam naa ko yéen ñi ko mos li ma ci wax xam ngeen ko nañu ko waajal lu ñu am nu def ci lu ñu amul wuti ko ndax ñu jot ci saalihu kon noppil te fëx bul yaafus sa weer te rooti na sa mbégte nay fés di huit safar yaa neex te baax te am njariñ yaa di mbégum Cheikhul Xadim sun sëriñ kon loolu laa la ci loolu laa ci doon barkeeloo di wax ne sëriñ Tuubaa ku mën a liggéeyal yàlla la waaye yàllaa ko daq fay lam waxoon ne suñ borom de du mbindeef bay ami jikko waaye am nay melo bokk na ci melom yooyee nag muy naqaree liggéeyal ak neex a liggéeyal daal na li tax mu naqaree liggéeyal boo koy liggéeyal du la ne fii laa lay faye du la ne lii laa faye du la ne kañ laa fay dalay bàyyi rek ngay sonn di liggéey waaye li tax mu neex a liggéeyal bu xasee balay fay du xool ndax yaa ngi liggéey du xool ndax liggéeyoo du xool ndax yaa ngi fi du xool ndax nekkoo fi te ku xool mbirum sëriñ bi nii muy doxee pay yi ko suñ borom di sottil nga xam ne nii ku mën a liggéey la waaye yàllaa ko daqa fay kon nag nañ góorgóorlu te farlu ci weer wi nga xam ne weeru mbégte la bu kenn mer bu kenn jàmbat dara bu kenn tooñ te ku la tooñ lu tooñ nga rëy rëy na ko jéggal bu kenn fexe bu kenn yàq sa mbégte waaw mbégtem safar moom euh, neex na neex goo xam ne ni euh, ku ci dugg dangay fexe ba bu la kenn yàqal sa mbégte di la dugal ci stress waaw ndax Sëriñ Tuubaa kat defal nañu loo xam ne nii ah, rawatina ci weer wi képp koo xam ne ne yaa ngi ko yëg di ko dund mel na ni ta tàbbi nga àjjana ndax ajjana mooy xol bu sedd ak xel mu dal sax na ma fi sudurihim min xillin kon nag ñoo ngi ci soñ sunu bopp di ci soññ mbokki taalibe yëpp ñoo ngi santaan mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci liggéeyu waa association xikmatul yawmi rawatina daara yi nga xam ne ni ñoo ngi koy